Eh, dinañ si ñëwaat Myriam. Mm-hmm. Eh, Myriam sa papa jamono bii dafa nekk ci loxoy yoon. balaa ñuy ñëw si lu jiitu loolu sa papa bi muy commencé di dugg si débat politique bi di ci wax eh, c'est vrai comme ni ko paa bi ak jot ànd ak Sonko mais bi mu commencé di initié wu ci débat public bi ak pression bi nekk ci politique ni moom ne sa famille day exposé wu en quelque sorte message yi critiques yi ndax nga ko doon dundee ndax jotoon ngeen ko doon wax pas peur de temps en temps moytuwul et cetera en fait d' abord. Mm, euh, en fait sama ku ko xam-xam ne bu jëlee benn décision du si dellu ginnaaw. moom il a toujours été comme ça et nous on l'a compris. moo tax su lu mu mën a entreprendre rek ñu dañuy def lu dul jàppale ko ci tu vois mais euh, si carrière politique bu mu duggoon noonu ñu on était euh, dañoo nekkoon trop à de côté. Mhm. bëgguñ ci woon wax lu bëri parce que moom. moom moo ko choisir duñ ko mën a wax rek mooy pas fait attention di nga xaw ne inquiétude dina mën a am day am mënuñ si dara mais après on lui laisse euh, le champ libre moom mooy def choix on sait que il la tête sur les épaules il sait ce qu'il fait mhm. donc loolu xel daloon na ci trop mhm. mhm. si xel daloon na si mais bon d'autant d'autant plus que am na benn moment dëkk bi xawoon na yëngu surtout 2022 2000 2021 l'affaire Adji Sarr dañu gisoon moom daf ci doon de temps à autre di xaw a jël position donc euh, pas jàppale Adji Sarr mais da jël position maanaam daanul woon d'accord ci méthode Ousmane Sonko ak ñi àndal yow en tant que femme de temps à autre doo leen si woon kii tuuti. mais loolu ça ça langage. Mhm. tu vois ça ça langage la sensibilité moo tax j'aimerais pas trop mhm. di si parce que c'est un sujet vraiment que mhm. j'aimerais pas aborder parce que je suis là pour un but très déterminé mooy parler de mon père de la situation et moo tax euh, côté boobu noonu moom. lu tax mu jël décision wax ci peut-être am na fu mu ko teg mhm. parce que du waxantu mhm. euh, lu mu gëmul tamit du ko wax peut-être il a ses ses raisons donc peut-être moom bu si bu génnee incha allah rabbi bu ko yàlla bu ñu ko yàlla maye bu génnee moom il pourra répondre par rapport à cela mhm. au-delà de aspect politique bi dinañ si aspect euh, li tax li waral coow li dinañ si ñëw forcément mais soo ma doon décrire à peu près un peu ban genre papa nga am ndax xadar bi ñuy gis ci plateau bi force bi wax bu dëgër bi est-ce que il est comme ça de nature en fait. Euh, en fait mon père c'est un c'est un papa poule mm. c'est un papa et très sensible ni nga ko gisee ni très sensible un un homme qui a toujours été là pour ses enfants il nous a beaucoup donné quand même. ba pare accompagner ñu si lu mu nekk d'ailleurs boo gisee sama frère yi ils sont tous musiciens. moo leen jël encadré leen vois. de daan bàyyi liggéeyam daal otoom jël sama frère yi leen pour qu'ils jouent leur spectacle di leen jàppale pour leurs albums et tout donc il a toujours été là pour ses enfants pas de jugement bu fekkee da nga ne nga bëgg tu lui dis ok papa c'est ce que je veux da laisser champ libre mm-hmm. tu prends tes propres responsabilités daf ñoo yàgg responsabilité responsabiliser mm-hmm. et c'est un père parmi tant d'autres en fait mm-hmm. un papa que j'aime énormément parce que xam naa la peut nga xam parce que si si nekk et politique ku si nekk rek xam nañ lu si euh, lu fi xew yëpp euh, tu auras des commentaires négatifs dañ lay bëgg ñii duñ la bëgg mais nous qui sommes ces enfants on, on connaît notre père on, on sait qui est le commissaire Keita qui a été commissaire de police de classe exceptionnelle mm -hmm. donc kooku c'est pas n'importe qui ñun ñi dëkk ak ñoom moom xam nañ ko bu baax. Mm-hmm. Mm-hmm. xam nañ xam ngeen ko bu baax mais mais de l'autre côté aussi bon nga xam sa papa nu mu mel ak nu mu la yaree ak jikko bi bu nekk ci moom. mais de l'autre côté aussi de temps à autre boo gisee benn vidéo ngay ubbi gis message yi nga gis ni am na ñuy yëkkati yenn kàddu yu tegginuwul di ko teg sa papa loolu aussi du lay faral di voilà. bah si au début au début même ay nit dañuy jëkk sa envoyé ma ay ay vidéo de parce que d'habitude du may xool lu muy lu muy wax parce que je sais que quand il parle il parle il tape fort il est comme ça peut-être c'est un éternel incompris par rapport ak ni muy wax te posture bu mu am dafa dafa dafa présent. tu vois et ce genre de personne la peut dafa mën a mën a déranger en fait donc nit ñi aspect boobu la ñuy gis ci moom donc euh, dañuy am ay commentaires négatifs c'est c'est normal nit ñi ñeen ñi dañuy bëgg ñeen ñi bañ et ça fait mal parce que c'est notre père mais moi je fais en sorte d'éviter cela di ko xool parce que moom si boppam xam na nit ñi li ñuy wax que ce soit positif négatif mais ça lui passe au-dessus quoi moom si lu mu nekk la nekk dafa focus si lu mu nekk lu waree wax day wax après il passe à autre mm-hmm. dañ koy jëm inter papa gis nañ lii et tout ma fille ne fait pas attention à ça moom mm-hmm. loolu lañ yaree vraiment xoolul loolu yëpp moom dafa dëgg si lu mu si lu muy def mm-hmm. voilà dafa dëggu dafa dëggu ci ci lu muy def dafa dëggu si lu muy def mais kër gi kan kan topp ko ci wàllu politique en fait comment. kër gi kenn topp ko ci wàllu politique genre. en fait ñun daf ñoo mus a bàyyi si suñu. suñu liberté si suñu liberté je dire chacun est libre de suivre qui il bu ñu toogee autour de la table on peut en discuter. Mm-hmm. dañ si discuter y' a pas de tension a rien de tout ça ñii dañuy ànd ak euh, Diomaye ñii Sonko ñii mun a ànd ak keneen ak keneen suñu famille ça a toujours été le cas. Mm-hmm. donc euh, il n'a jamais eu ce problème. par rapport à cela. Bah oui, mon frère euh, Jacques Keita, mm -hmm. il est très présent et xeex na si lu bëri quoi mhm. euh, euh, pour pour pour pour Sonko. Mm -hmm. voilà Jacques l'artiste. waaw ouais, Jacques c'est un c'est un artiste musicien. moom patriote la donc. Ah patriote. d'ailleurs temps yi mi ngi def ay sorti parce mm que vraiment c'est c'est compliqué pour lui parce que il est entre deux camps. Euh, benn bi muy papa moom leen jàpp beneen bi muy il est de Pastef donc c'est un peu compliqué de son côté. mais aussi il comprend aussi certaines euh, ré réalités quoi mi ngi siy def ay appel euh, donc de son côté mi ngi def émission émissions et tout. def ay appel émission mm-hmm. alors dinañ si dinañ si ñëwaat léegi euh, monsieur Amadou. Mm-hmm. bon comme moom ni mu ko waxee en fait yow mi nga xamante ne xam nga papaam au-delà de bi. Mm-hmm. même moom ñëpp xam nañu daf doon faral di waxam dafa dëgër et puis waxam il e incompris en quelque sorte en fait. d'une part mais est-ce que yéen a ngi doon xaar situation bii ni mu dund ko. ben oui ñu ngi ko doon xaar. ñu ko doon xaar. commissaire Keita bi ñu ko jàppee ba signifier ko ni que mandat dépôt la lañ ko def mais je parle sous le contrôle de l'avocat maître Diagne et de celui qui lui a signifié ça le magistrat qui lui a signifié il a dit alhamdulillahi rabbil alamin pour moom il m'a dit de manière ouverte que ça aurait été vraiment trop euh, dévalorisant comme moom avec tout ce qu'il représente dans ce pays avec son cursus son passé les les les respons les risques qu'il a pris et tout mu ñëw ñu téye ko pour ba un week daal di ko xam ni deful dara ñu bàyyi ko mu demaat quoi xam loolu moom day jàpp ni fontoo ko la quoi xam nga. Mm-hmm. donc moo tax bi ko waxee loolu mu ne un un homme politique averti responsable il a dit alhamdulilah rabbil alamin bu doon man la aussi noonu laay def la même chose lay def mm-hmm. un homme politique quelqu'un qui s'engage dans la politique. mais il doit s'attendre à tout moment su fekkee ni dafa am affaire ak ay nit ñoo xam ni ce some pas réellement des démocrates li ñuy wax gëmuñu ko en réalité c'est des gens yoo xam ni dañ ko dañu jël benn mbubb soloon ko mais aujourd'hui benn masque bu ñu takkoon ci seen kanam wane démocratie wane bëgg askan wane bëgg dajale Sénégal. est-ce que moom moo xëy na dugg ci benn. non non non du tout duggul ci non ñoom mënuñu piéger. commissaire Keita moo leen ëpp expérience mille fois mënuñu ko piéger c'est impossible c'est qu'en fait il a assumé ses responsabilités ses droits il en a il en a usé ses droits que la constitution du Sénégal lui confère. mooy wax la liberté d'opinion. il a dit ce qu'il pensait. il n'a diffamé tout le monde sait que le commissaire Keita n'a diffamé personne. tout le monde sait que le commissaire Keita n'a euh, diffusé aucune fausse nouvelle. Mm moom c'est absolument certain. Mm -hmm. Et nous sommes très dañuy yàkkamti. ci kàttanu yàlla. Mm-hmm. ñu dem ci procès. ba ñu taxaw wax ñu exactement ak quel niveau la defe diffusion de fausse nouvelle. parce que là lu ñu wax li mu wax. Mm-hmm. man wax naa ko keneen wax naa ko wax na ko su fekkee ni loolu ñu wax ni Sonko ak Diomaye dañu amoon. dañu amoon risque dañu am problème. Mm-hmm. ba di xuloo wala ba di waaja am histoire seen diggante loolu lu ñaaw la et lu lu la c'est ce qu'il a dit je le dis tout le monde l'a dit mm-hmm. su fekkee loolu am na loolu sii la c'est le conditionnel. donc am na lu nga xam ni waxuloo ko. Mm-hmm. wax nañ ko une semaine avant moom mu koy jël di ko commenter. di mag. am presque soixante-dix ans passés. mais est-ce nekkul peut en quelque sorte commentaire bi mu si def moom. mu xëy non mais mais mais commentaire boobu moom en tant que homme politique dafa am droit def commentaire boobu la commentaire est libre. vous êtes journaliste xam nga mm. loolu. le commentaire est libre chaque citoyen à la xam nga lan nga mënul def. Mm-hmm. saaga président wala nga jàll ko baat wax ka naka sudul noonu wax ci moom wax ci lu nga xam ni daf koy voilà daf koy toucher moom personnellement mais dans sa dans la gestion de ce que les gens lui ñun dañ ci am droit de regard. joxuñu buur faluñu buur faruñu Damel du Kayor faruñu Daaw Demba faruñu Lat Joor wala keneen on a élu un président de la République qui au service de la nation en principe et la nation a les les les gens qui composent cette nation ont un droit de regard dañu am responsabilité wu di saytu li muy def su baaxee ñu wax ko su bonee aussi ñu taxaw ni lii du yoon. mais est nekkul fiabilité information bi. nit ñi mën nañ ci mën nañ ci poser question que ni information wérul ñi ni wér na ñi ni wérul ah. est-ce que moom war na commander ci information boo xamante ni voilà am am na ci droit kenn même bu fekkee leerul fait gis nga même si l'information n'est pas avérée mhm. quelqu'un qui di su fekkee ni loolu am na précaution bi ka yoon may jël na ko utiliser na ko parce que loolu ku jàng xam nga ni yoon moo la may par mhm. exemple genre yu demee noonu mhm. nga nuancer wax ni loolu bu fekkee ni am na c'est comme si mu xamoon si c'était cette information était avérée xam nga loolu yow jël nga maanaam euh, am nga kaaraange bu nga xam ne yoon moo la ko may ci loolu beneen affaire bi gën a grave mooy par exemple ñu wax ni euh, dafa def offense au chef de l'État xam nga buñ ko téyee mënuñu prouver loolu mënu woyef na woyef boo xam ni mënuñu ko ci tëj diffusion de fausse nouvelle li ñu mën a def rek pour mën a créer pour mën ko téye mooy ñu in créer loolu daal di ni offense au chef de l'État mais loolu nag aussi du ci réewu yoon la ñu nekk et nous nous faisons confiance à notre justice contrairement à ces gens mm-hmm. qui n'ont jamais fait confiance à cette justice qui ont toujours dit que cette justice était une justice dévoyée mm-hmm. une justice partisane mais nous nous croyons que effectivement si on parce que le juge d'instruction bi ko mm-hmm. yoon moo ko may euh, mu bu fekkee ni offense au chef de l'État dafa am mu téye nit ki mu dem instruction parce que accusation boobu moom mooy une accusation fallacieuse